laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun wasalaatu wasalaam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi très chers amis auditeurs par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala puis avec l'aide de notre frère Mouammar Khadafi Diakhaté nous savons qu'en tout temps en tout lieu l'envoyé d'Allah la meilleure des créatures le prophète Muhammad paix et salut sur lui reste le plus bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jour du jugement dernier et qui invoque Allah avec ferveur comme dit la sourate Les Coalisés en son verset 21 gannaaw ñu dellu sant yàlla subhaanahu wa taala ànd ak sunu mbokk Muammar Khadafi Jaxate ñuy fàttali sunu bopp di fàttali képp kenn ci ñun ni jamono bu mu mënti doon ak bërëb bu mu mënti doon dañuy am rekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam royukaay bi gën a rafet liman kaana yarju llaha wal yawma al axir wa dakara allaha kathira waaye nag ca ña nga xam ni ñii ñu nga yaakaar yàlla yaakaar dara bis penc sax ci jaamu seen borom saa su nekk suratul ahzab de nos jour partout dans le monde le mois de rabiul awal ou gàmmu est une occasion de réviser le modèle de perfection humaine qu'est le prophète Muhammad paix et salut sur lui la meilleure des créatures. Les savants, qu'ils soient croyants ou non, sont unanimes sur la perfection du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dans tous les domaines, et l'ont, par conséquent, surnommé l'homme parfait, al-insanul kamil, le modèle de tout croyant sincère bu weeru gàmmu rabiul awwal fenke rek fépp ci àdduna bi dañ ciy profité di fàttaliku melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa melokaanam yu mat ya moom mi yàlla tànn def ko ki gën ci ñi mu bind moo tax boroom xam-xam yépp moo xam gëm nañu moo xam weddi nañu mànkoo nañu ci matam ci ay melokaanam yu sell ci bépp fànnay dundu àddu ba ñoom ñëpp nag ñu tudde que ñii al ki ñu woolu ñii al insaanul kaamil nit ki nga xam ni moom mat sëkk ñii uswatul xasana royukaay bi nga xam ni mooy bi gën a rafet ci kaw suuf rawatina nag ñeel ki gëm borom bi subhaanahu wa gëm gu sell te wér ainsi le croyant doit incarner ces caractéristiques et caractère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son serviteur modèle et qu'il aime voir sur l'ensemble du reste des serviteurs. C'est cela la seule condition pour gagner l'amitié d'Allah, devenir son ami. Ces caractéristiques du messager d'Allah, ou si tu veux du waliullah, sont la foi la taqwa, l'obéissance aux et interdits d'Allah, l'action utile, al-amalu salih, en toutes circonstances et envers toutes les créatures mbokk yi jullit bi moom dafa nekk wareef ci moom yii di melokaan yii di jikko yoo xam ne yàlla mooñ na ci yonent bi alayhi salaam jullit bi góorgóorlu lu mu ci mën a màng làmbook loolu rekk nag mooy sart bi yàlla tëral pour nit ki jot ci cofeelu yàlla subhaanahu wa taala nekk xaritam xalilullah nekk soppeem xabibullah bokk ci waliyullah ngir loolu nag dañuy jàngate ci moom ku tedd ki gëm taqwallah topp ndigalu yàlla yi bàyyi tereem ak nag foo mën a nekk ak koo mënti jëflanteel na sa jëf jëpp rafet na nekk amalun saalix jëf joo xam ni day defar saa su ne c'est la foi qui différencie les amis d'Allah des amis de Shaitan awliyaullah wa awliyau Shaitan sourate la vache verset 257 dit Allahu est le wali de ceux qui croient et la sourate Ali Imran Allah est l'ami des croyants mbokk yi gëm mooy tàqale diggante awliyaullah xaritu yàlla yi ak awliyaawu cheytaan ñi nga xam ni ñoo farak iblis ak i ñoñam boo demee suratu baqara yàlla da fay wax mu ne allahu waliyu lazina amanu yàlla moom ñi muy méngoo di leen def waleem di leen def ay xaritamay soppeem mooy ñi gëm mu baamtu ko suratu ali imrane laaye juróom benn fukk ak juróom ñett wallahu waliyul muminin te nag yàlla moom mu ngi méngoo dong ñi nga xam ni ñoo gëm gëm gu sell amis auditeurs nous nous rappelons Khouraïch se plaindre auprès de l'oncle du prophète Mohammed paix et salut sur lui Abou Talib celui-ci lui suggéra d'éviter d'offenser son peuple alors avec la force de sa foi et la détermination à suivre toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa quoi qu'il lui en coûte. Le messager lui répondit, Mon oncle, sache que si on me mettait le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche pour que j'abandonne cette affaire, je ne le ferai point jusqu'à ce qu'Allah la réalise ou que j'y laisse ma vie. ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku bis ba Xuraysh kàngam ya demee ci abutaalib Taalib boole yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni doyadal na sunu yàlla yi saaga na sunu maam yi doyadal na xeet wi Abu Taalib dénk yonent bi alayhi salaam ni ko waaye moytul moytul sa waa dëkk yonent bi salaam ca pas ba ca dogu ci topp lépp lu ko yàlla subhaanahu wa sant ak nag lu mu koy mën a jural mu tontu ko mu ne ko yaa am yow bàyyi gis nga maa ngi lay waatal ci yàlla ni bu ñu tegoon jant bi fii yamini ci sama loxo ndeyjoor bii jël weer wi tegal ma ko ci sama càmmooñ ala an atruka hada amr xata yushirahu llah aw uhlika fihi taraktu mu ne gis nga bu boobaa ngir rekk loolu yëpp ñu ma koy neexale pour ma bàyyi mbiru yàlla bii ma noppi ci wax ma noppi ci woote loolu du am mukk lu dul xanaa yàlla fésal mbiram mu tiim lépp wala man ma alku fekk maa ngi dox ci biir mbir bi ami auditeurs nous nous rappelons aussi le jour où les gens de Taïf chassèrent le prophète Mohammed paix et salut sur lui à coups de pierre il se confia à Allah et lui dit Allahumma je me plains à toi de ma faiblesse de mon manque de moyens et de considération auprès des gens toi le plus miséricordieux mais tant que tu n'es pas en colère contre moi tout cela m'importe peu bien sûr que je préfère ta grâce préserve-moi donc de subir ta colère et je m'efforcerai jusqu'à ce que tu sois satisfait car il n'y ni puissance ni force qu'en toi mbokk yi ñu ngi fàttaliku bisu Taïf ba ñu ko boolee ak euh, gone yee ñu sànni ko xeer dàq ka dëkk ba yonent bi alayhi salaam wéetoog yàlla waxtaan ak moom waxtaan wuy feeñal dëgg-dëggu taxawaayu digganteeg borom mu ne ko allahumma ilayka ashku dofa quwati wa qallata xiilati wa hawaani ala nnaas arhamar rahimin mu ne ko yàlla ci yow rek lay jàmbat sama néewu doole ak sama néewu pexe ak ni ma doyadee ci kanamu nit ñi yow boroom yërmande yi waaye nag in lam takun hadaman alayya fala ubaali waaye nag loolu lépp de gis nga li fekk mere woo ma loolu moom faalewu ma ko xayra an aafiyataka awsau lii ànd ak nag ni sa aafiya sa njëkk sa mbaax moo ma gënal auzu bi nuuri wajhika allazi ashraqat lahu dulumaatu wa salaha alayhi amru dunya wal axira an tunzila bi xadabak aw tuxilla alayya saqtak maa ngi muslu ci sa leeru kanam ci nga may mere wala nga may sànj déggal mu nekk nag lakka la utba xatta tarda danaa yëngu di kër-kër yi di def lu ma mën ak lu ma mënul ba nga kontaan yow suma ndax la hawla wala quwwata illa bik amis auditeurs c'est cette foi pure et déterminée que nous devons nous rappeler et imiter chez le prophète Muhammad paix et salut sur lui lorsque nous mettons nos tentes pour célébrer la naissance et la mort de la meilleure des créatures le prophète Muhammad paix et salut sur lui mbokk yi pas-pas bii bu sell bi dogu bi ci digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala moom la ñu war di fàttaliku di ko roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa ali boo xamee ni bii ñu ngi samp sunuy tànt ne lu ñuy def ñu ni dañuy gàmmu lan mooy gàmmu dañuy màggal yonent bi sallallahu alayhi wa ali di bége bis bi mu dikkee ci àdduna bi indi yiwu yàlla woo xam ni dootul jeex ba àdduna di tukki nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg mën a topp loolu yomb na borom bi yàlla nanu ko defal كنت للأسرار كلها مضمار كنت للأسرار كن يا مدمار أيها المختار أنت باب الله يا رسول الله L'autre qualité que nous devons aujourd'hui <clears throat> mettre sur la place publique, une place publique polluée par les mauvais comportements, les mauvaises paroles, les insultes, la médisance dans les réseaux sociaux. Cette qualité, c'est les bonnes manières. Adabu Nabi Ces bonnes manières sont les caractéristiques qui distinguent les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala de ceux de Satan, le maudit. Quand le prophète Muhammad parle, il dit toujours du bien. Et il nous conseille d'en faire autant, car il nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou bien se taire mbokk yi beneen jikko boo xam ne rafle nañu ko tey bi nga xamee ni suñu penc xastaate saagaante wuññi sutura yàqante der moo ci nekk jaare ka nag ci réseaux sociaux yi ak ci suñuy rajo ki suñuy télé jikko bu adab teggin yar bokk na ci li ñu war a jàngaate ci yonent bi alayhi ngir ñu mën a bokk ci xaritu yàlla yi ndax bokk na ci li leen di taqale ak awliyaau sheytaan mooy rafet doxalin yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu jëfee nga ni gongo bu waxee nga ni gongo mosul wax lu dul day wax lu rafet masul wax lu dul day wax dëgg masul wax lu dul day ci jublu njariñu ki muy waxal noona nag lañu sante ni ñu nañu def na moom wax na te lépp lu mu wax mooy dëgg mu ne mën man kaana yuminu billah wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmu mu ne képp koo xam ni kii gëm nga yàlla yaakaar bis penc mu ne wax booy wax na nga wax lu rafet waxal lu rafet boo mënul wax lu rafet noppil boo ko mënul nga le fondement du bon comportement est de s'occuper uniquement de ses affaires donc le prophète alayhi salam nous dit parmi les vertus qui font le bon musulman figure le fait de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas mbokk yi mbëmbëstalu jikko yu rafet ak teggin mooy ngay dugg lu sa yoon ne di toppatoo sa mbiri bopp moo tax mu sant nu ko mu ne min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa mu ne bokk na ci rafet diiney nit nit ki diineem rafet pas-pasam jekk dundinam ci askan wi jekk mooy mu bàyyi mu génn ci lu yoonam nekkul Quiconque aime le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, doit faire preuve de bonne éducation et de noblesse de caractère, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il le loue, lui a simplement dit, tu es d'une moralité et d'un caractère parfait. Sourate Al-Qalam verset 6 koo xam ne da nga sopp yonent bi roy di ko toppandoo dafa war ci yow ngay wone teggin ak yar bu rafet ngay jëflante ak jikko yu rafet ndax ba ko yàlla subhaanahu wa taala dee gërëm gërëmewu ko lu dul wa innaka la ala xuluqin azim yow da nga nekk ci jikko yu rëy yu rafet yu jéggi lépp lu nit mën a xalaat Anas ibnu Malik radiallahu taala anhu raconte qu'un un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Les gens se levèrent pour aller le frapper. Le prophète alayhi salam leur dit, asseyez-vous, laissez-le terminer. Puis, versez de l'eau sur ses urines. Sachez, leur dit-il, qu'on vous a envoyé pour facilité et non pas pour rendre les choses plus difficiles. regarde c'est eux qu'ils et non la le bédouin yi Anas nettali na ni bis benn ara benn nit ku jóge ci baadiya bi dafa ñëw rek dugg ci jàkka ji rek dal di wàccee tubayam rek commencé saw ci digg jàkka ji nit ñëpp di ko xool gaa ñëpp dal di mer tëb bëgg ko tatafoo yonent bi alayhi salaam mu ni daaw bàyyi leen ko mu yeggale bu paree sotti leen ndox rek ci sawam yi laabal bërëb bi fa innama bu'istu muyassirin walam tub'asu mu'assirin yàlla daf leen yebal yéen jullit ñi ngeen di yombal mbir yi di jàppandalal nit ñi mbir yi yebalu leen pour ngeen jafeel mbir yi taral ka xoolal au mu yedd kii saw ci jàkka ji ma nga yedd ñi ko bëgg dóor lu tax parce que kële xamul da ngeen ko war a xamal waru leen ko tàbbal ci mu weddi borom bi subhanahu wa ami auditeur es-tu prêt pour implorer Allah subhanahu wa taala de pardonner tous ceux qui te font du tort pour simplement imiter le prophète Mohammed paix et salut sur lui ou bien vas-tu faire comme ceux qui maudissent n'importe qui qui leur fait le moindre tort et demandent à Allah de le mettre en enfer boo déggee lii ci yonent bi alayhi salaam da ngay laaj sa bopp est-ce que pare nga pour ku la tooñ def la lu la metti pare nga pour ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na ko yàlla baal te jubbanti ka génne ko ci lii wala est-ce que da ngay taxaw taxawaayu ña nga xam ni boo leen xoolee bët bu leen neexul rek jël nañu seen kurus nee nañu ñu nga lay rëbb ñu nga lay booleeg yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi ñaan yàlla bul génn safara mukk ami auditeur La générosité de la meilleure des créatures est légendaire et cette qualité doit être imitée de nos jours. Jabir raconte qu'on n'a jamais demandé au prophète Mohammed paix et salut sur lui quelque chose au nom de l'islam sans qu'il l'ait satisfait. Un mécréant lui demanda un jour et il lui offrit un immense troupeau qui peut remplir toute une vallée. L'homme de retour dans sa tribu, il n'était pas croyant, sa tribu n'était pas croyante. L'homme leur dit, mon peuple, allez embrasser l'islam. Car Mohammed que je vois là donne comme quelqu'un qui ne craint point la pauvreté. Quelqu'un pouvait venir à lui uniquement pour les biens de ce monde. Mais quand il repartait, Il avait déjà embrassé sa religion, qu'il considérait comme la meilleure de tout ce que le monde contient mbokk yi tabe yéene ñépp jàmm ak mbaax yéwén jikko la bu ñu war a roy ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam jikko la bu nu rafle tey kenn ku nekk yaa ngi def jikkoy cuuj loo am yaa ngi beru yaa ngi añaane ña ca des na mu ne yonent bi alayhi salaam nit masu ko laaj ci turu lislaam rek lu dul lanka laaj dana la ko defal benn bis benn waay gëmul yàlla dafa ñëw mu mu jox ka jox ni ko xoolal xur wi li ci nekk ci gàtt lépp yaa ko moom waaja dellu dëkkam waa dëkkam kenn gëmul mu ne leen ay xaw mi aslimu mu ne leen yéen samay nit dugg leen ci lislaam fa wallahi maa ngi waat ci yàlla ni muhammad mii la yuti ataa man laa yaxaaful faaxa moom na muy joxe dangay xam ni kii ragalul ñàkk jaabir na na nit daan na ñëw ci yonent bi alayhi salaam dara taxu ko jóg lu dul maa yuridu illa dunia mbiru àdduna kese àdduna ka tax jóg ñëwul pour diine ñëwul pour tuub waaye bala mu fay jóge ngoon yakuna diinahu ahab ilayhi wa aazzu alayhi min addunia bi ma fiha bala mu fay jóge day nekk ni diine yonent bi muy woote moo koy gënal moo koy gënal ci lépp loo xam ni mu ngi ci biir àdduna ak li àdduna am ami auditeur est tu partages ta force est-ce que tu partage tes moyens Est-ce que tu partages ton savoir? Est-ce que tu partages tes biens? Est-ce que nous sommes prêts, comme le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, à nous mettre à la disposition entière de celui qui nous demande de l'aide? Ou bien est-ce que nous allons faire comme ceux qui augmentent les prix, augmentent le transport, quand ils savent que leurs semblables sont dans le besoin? Nous sacrifions-nous pour l'intérêt de la religion? Ou faisons-nous partie de ceux qui exploitent la religion pour les biens et les honneurs éphémères de ce bas monde? En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fils d'Adam, dépense, et je me chargerai de dépenser pour toi. Quand on dit dépenser, pas uniquement les biens matériels, mbokk yi ndax pare pour kattan gi ñu yàlla jox ñu bokk ak ñi ci des. moyen jumtukaay yi nu yàlla jox ñu bokk ko est-ce que pare nañu pour li nu yàlla xamal nu bokk ko ak ñu ci des sunu man-man sunuy pexe est-ce que pare nañu pour taxawu képp koo xam ni yaakaar na ci ñun ba diis nu aajoom wala ndax dañuy taxaw taxawaayu ñi nga xam ni bu soxla taxawee rek ñu yokk njëg yi bu tukki teewee ñu yokk transport bi fu nit jaaxle ñu profiter ci njàqareem dund ci kawam est-ce que ñun dañuy bokk ci ñi nga xam ni dañuy jébbal seen lépp te diine tax wala dañuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy profito ci diine ji pour dajale alalu àdduna dajale teraangay àdduna yi lu mu ci mënti doon yàlla wax na te lu mu wax mooy dëgg mu ni ibnu aadama am anfiq umfiq alayk mu ni doomu aadama joxeel boo joxee ma jox la la meilleure des créatures. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'était pas seulement généreux, Karim, Jawad. Il était aussi Halim, clément. Un jour, un bédouin empoigna le col de son habit, le secoua violemment et lui dit: Charge-moi mes deux chameaux que voici des biens qu'Allah t'a confiés. Ces biens ne sont pas à toi ni à ton frère. mbokk yi xoolal yonentu bi nekkul woon koo xam ne kii dafa tab dong waaye borom teraanga la woon borom yërmande bis benn waay dafa ñëw fekk ka mu toog ci digg saxaaba yi mu poñe ka gësam ka ba ngay gis tërgan yi ci euh, loosu yonent bi mu ni ko ihmil li alayya ba'iray haaday waaye dama bëgg nga sarsel ma sama ñaari gëléem yii min malillahi alladi indak ci alalu yàlla ji nga xam ne moom la la dénk laa taxmil lii min malika wa mali abik du sa alal nga may jox du sa alalu baay nga may jox quelqu'un le ferait devant nos sëriñ de ce jour mais le prophète alayhi salam lui dit les biens appartiennent bien sûr et je suis son serviteur Sache d'ailleurs que je vais me venger de ce que tu viens de me faire. Le Bédouin sourit et lui dit, tu ne le feras point, tu ne vas pas te venger. Pourquoi lui dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui? L'homme lui dit, toi, tu ne réponds pas au mal par le mal. Le prophète alayhi salam sourit et dit, chargez-lui ces deux chameaux, l'un d'orge, l'autre de dattes. yonent bi alayhi salaam dafa toog rek waa a poñe wax ka li mu ko wax yonent bi alayhi salaam tontu ko ngay xalaat lii lii ku ko defoon ci sunu sëriñ si tey allahu akbar nga fekk rek laaj ka masala rek sa bakkan fa lay yem waxuma nag nga koy poñeg di ko gësëm naan ko joxeel alalu yàlla ji yonent bi alayhi ni kam al maalu maalu la wax nga dëgg de alal ji day alalu yàlla la man mi it jaamu yàlla la waaye nag li nga ma def danaa fayu waajiree ni ma faal te bi eh, yow doo ko def yonentu ni ka lu tax nga ni duma duma fayu mu ne ka li am naka laa tukaafi sayyi'ata bi sayyi'a ndax yow doo fayonte lu bon ku la def lu bon doo ko delloo lu bon yonentu ree dal ni yabal leen sëfal leen ke ñaari gàttami gëleemam yi bii def leen ci dugub bii defal leen ko tàndar amis auditeurs, aimez le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. L'imiter, faire comme lui, c'est apprendre à pardonner à ceux qui nous offensent. Mais ne jamais tolérer qu'on offense Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager ou sa religion mbokk yi sallallahu alayhi wa ali roy ci jëfam mooy kenn ku nekk ci ñun di jàng jéggale ak jéllale ci lépp loo xam ne dañu ko ko def mu jëm ci boppam waaye nag loolu àndul ci tooñ yu ñu tooñ yàlla subhaanahu wa tooñ yu ñu tooñ yonent bi sallallahu alayhi wa ali wala diinay lislaam bu boobaa jullit bi amul sañ-sañ ci baale na yonent bi alayhi salaam daan def rek lay def ku def yàlla mu jëflante ka ak yow ku def diine ji mu jëflante ka ak yow nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci soppe yonent bi sallallahu alayhi wa alihi kay roy wërsëgal nu boole ñu ci woy dégg yi mën a topp loolu yow mën a borom bi yàlla nanu ko defal ya ya rasul الأكوان مصطفى الرحمن أنت في الأكوان مصطفى الرحمن جئت بالقرآن هاديا لله يا رسول الله La patience, le sabre, la maîtrise de soi, la détermination Et cette autre qualité que nous devons imiter du prophète Mohammed, paix et salut car cette qualité est en voie de disparition. L'histoire a retenu que quand Quraysh le boycotta pendant trois ans, l'affama, le persécuta, lui et ses adeptes, il resta ferme sur ses positions. Mbokk yi beneen bu ñuy jàngat di ko roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa ali ci képp koo xam ni ne nga mooy sa soppe mooy sabru mooy muñ mooy jàmbaare mooy not sa bakkan taarix nettali na yonent bi alayhi salaam toog na ci màkk ci njaal benn woote bi ñetti at yoo xam ne yi dañu ko boycotté tëj ko ci benn benn xur kenn du jëflanteeg moom di ko jéem a xiifal di ko bundu xatal moom ak képp ku ni gëm nga rek li muy woote waaye mu sax rek ci la mu nekk ami auditeur ce n'est pas surprenant car Allah subhanahu wa lui a dit sois patient comme les ulul azm parmi les les messagers Al-Ahqaf verset 35 et lui a dit Sourate l'Abeille, verset 127, patiente. Tu ne patienteras qu'avec l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu subhanahu wa ta'ala l'a aidé à avoir de la patience mbokk loolu du ñu jaaxal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax yàlla moo ko wax ni ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul na nga góorgóorlu muñ not sa bakkan ni nga xamee ni ulul azm ci yonent yi noonu la ñu note woon seen bakkan ba mën a taxaw ci li ma leen sant mu waxaat ka suratu nax li ni ka isbir wa ma sabruka illa billah na nga góorgóorlu waaye nag doo mën a muñ lu dul ci kàttanu borom bi subhanahu borom boobu moo ko dimbali mu am muñ gi mu muñ ba àdduna yépp ku gëm ak ku di dikk ko seedeel ami auditeur L'autre qualité dont nous avons extrêmement besoin de nos jours est l'équité et la justice. Quand Fatoumata al-Makhzoumiya, une dignitaire de Khouraïch, vola et que Oussama ibn Zayd intercéda en sa faveur, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se mit en colère et lui dit: Oussama, est-ce que tu oses intercéder dans une peine décidé par Allah subhanahu wa taala yi beneen jikko boo xam ni rafle nañu ko te soxla nañu ko ci sunu jamono bii mooy maandute ak teg mbir yépp ci kaw justice ci kaw njub faatumatu al-Maxzumiya ci kàngam dignitaire Xuraysh yi la bokkoon dafa sàcc ñu war dagg loxoom Usaama ibnu zeyd dem ci yonant bi alayhi salaam di ko tinul yonant bi alayhi salaam mer ni ko afi haddin min hududillah tashfa ya usama mu ne ko usama yow da ngay am sañ-sañ ci atte boo xam ne yàlla moo ko atte nga ñëw di ci tinu puis il s'adressa à l'assistance et dit ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés c'est qu'ils ne faisaient rien à un noble qui volait ou qui faisait une faute Mais si un faible volait ou faisait un délit, il lui appliquait immédiatement la loi dans toute sa rigueur. Je jure par Allah que si bintu Muhammad vole, je lui couperai la main. mbokk yi yonent bi salaam daal di jog wax ak mbooloo ni leen li alag ñi leen woon mooy kaanu isa saraxa fihimu sharif taraku boo xamee ni kii ku màgg kilifa ci ñoom sàcc na tooñ na def nañ jombe dañu koy bàyyi kenn du ko def dara wa iza saraqa fihimu daif aqaamu alayhi hadd boo xamee ni ku néew doole ku boroom yax bu sew comme ni ñu koy waxee sàcc na wala tooñ na wala juum na mu ni dañu koy dal di teg yoon ca na yoon gën a metti wayimullah waat naa ko ci yàlla ni law saraqat fatimatu natu muhammad la qataatu yadaha waat naa ni fatimatu mii ma jur man bu sàccoon ma dagg malheur à nous malheur au principe qui dit tu es avec moi tu es au-dessus de la loi tu es contre moi la loi sera sans pitié à ton égard et avec cela nous osons prétendre aimer et imiter le prophète Mohammed paix et salut sur lui combien de personnes sont dans nos prisons pour un poulet, pour 100 francs, alors que ceux qui ont volé des milliards, volé toutes des contrées, sont là allant et venant en toute liberté mbokk yi toskare ñeel na ñi ñi ni seen tëralin mooy àndal ak man rek mucc nga ci yoon yoon du dal ci sa kaw waaye ma yaakaaree yow da ma contre yoon dana jëflanteeg yow jëflante boo xam ni dangay mujj sa baqate yépp di bàcc-bàcc ci digg mbedd ànd ak loolu nag ñun ñuy fëgg suñu dënn rek naan ñun ñoo sopp yonent bi alayhi salaam ñun ñu ngi roy yonent bi alayhi salaam roy kuy roy yonent bi alayhi salaam daa dem ci kasoom fekk fa ñi nga xam ni ganaar lañu sàcc puso benn portable ñu tëdd fa fukki at ak lu tegu ka sàcc ay milliards sàcc suufas réew mi alalu réew mu dugal ko ci kontam di daagu di dem di dikk ñu koy tudde kilifa di ko tudde boroomi cër la justice et l'équité c'est que les privilégiés ouvrent leur portes aux pauvres et euh, aux indigents le prophète Mohammed paix et salut sur lui disait transmettez-moi les besoins de ceux qui ne peuvent pas accéder à moi Celui qui me transmet leurs sollicitations sera en sécurité auprès d'Allah le jour de la grande peur mbokk njub justice mooy rek ñi nga xam ne yàlla teg na leen ci kanamu nit ñi ñu ubbi seen bunt ci néew gi doole yi yonent bi sallallahu alayhi wa ali daan na wax ay bëkk néegam ni leen ablighul ablighuu xaajata man laa yastatiu iblaaxi mu ne di leen ma jottalil soxla ñi nga xam ni mënuñu yegsi ci man gis nga képp koo xam ni jottali nga soxla koo xam ni mënul jote ci man amanahu llah yowma alfazail akbar kooku yàlla dana ko dalal defal ko kaaraange bis bu nga xamee ni bisu njàqare lay doon bokk demal ci suñu buntu këru kilifa yi ñuy wax àdduna demal sunu buntu këru kilifa yi ñuy wax diine boo joxewul doo jote mukk ca kilifa ga boo amee poos bu diis doo taxaw boo dee néew gi doole borom walla fa ngay noor di fa nawet ami auditeur si tu changes ton numéro de téléphone si tu postes un chien méchant devant ta porte parce que tu es devenu directeur de quelque chose président de quelque chose ou xalifa de quelque chose alors tu n'as rien à voir avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sache que tu es loin, loin de lui bokk su fekkente ni ab ndombol tànk bu ñu la takkal tax na nga daal di soppi sa numéro téléphone wut gardien samp ci sa buntu kër ndax yaay directeur wu nangam yaay président wu nangam tey teg toog nga ci xilaafa gi nga daal di tëj sa buntu kër xamal ni taqewoo laalewoo ci yonant bi alayhi salaam sore nga ko ba fu sore di yam une qualité du prophète Mohammed paix et salut sur lui devenue denrée rare et le renoncement au bien de ce monde c'est la sobriété au lieu d'amasser les richesses qui lui parvenaient de toutes parts le prophète Mohammed paix et salut sur lui les redistribuait aux pauvres et aux nécessités Les gens disent que le prophète était pauvre, il n'était pas pauvre. Chaque jour, c'était des milliards qui étaient, qui lui étaient remis, qui venaient de toutes parts. Mais à la tombée de la nuit, un seul franc ne restait auprès de lui. S'il en restait, il disait à Bilal, je ne rentrerai pas tant que tu n'auras pas trouvé quelqu'un à qui remettre ces 200 francs qui restent dans la caisse du peuple. beneen melokaan boo xam ni bii jeex na ci sunu jamono mooy du mooy doylu doylu ci àdduna doylu ci àdduna yonentu Yàlla sam daawul dajale alal yi alal moo ne fépp la ko doon jóge yàlla joxoon na ko xumus nit ñi li ngay gis ci suñu sëriñ yi rek lu ko raw moo nekkoon ci yonent bi alayhi salaam fu nit amee dara moom ngay ñëw jox ko bu ñu dajalee asaka ji moom la ñu koy jox ku sox ku am sa soxla moom ngay ñëw ci moom jox lu ñu ko mës a jox joxe nag ay milliards moom la daan dajale ci suba waaye balay tëdd ci kaw lal joxe na lépp bu desoon benn 15 mu ni bilaal du ñu dellu kër ga lu dul boobu gis nga ku ko soxla nga jox ko ba nit ñëw am soxla ñu jox ko mu door di ñibbi kër ga et c'est lui qui nous renonce à ce monde et Allah t'aimera renonce au bien des gens et les gens t'aimeront li mu nuy jàngal mu ne ñu izhad fi dunya yuhibbuka allah mu ne gis nga doylul ci àdduna boo doyloo ci àdduna yàlla dëna la bëgg dangay nekk soppe yàlla wazhad fi ma inda naas yuhibbuka naas gis nga nit ñi boo leen bàyyee ak la am xooloo li ci seen poos dugaloo ci sa loxo lu dul la nga am nga bokk ak ñoom mu ne ñoom ñépp ci nit dañu lay sopp bon dëddul àdduna yàlla sopp la dëddul alalu nit ñi nit ñi sopp à son retour de Taïf Allah subhanahu wa lui proposa de changer pour lui deux grandes montagnes en or. Oh, si on nous avait dit ça. Le messager répondit, non, Seigneur. Je préfère être rassasié un jour et te remercier. Avoir faim un autre jour et t'implorer avec ferveur. Mbokk yi ba mu jógee taayif yàlla merle ke yàlla dafa yabal jibril ni ko wax ka ni ko bu bëggee ma soppil ka alxashabayni yi defal ka ka yépp muy ay jama yonent bi alayhi salaam mu ne ko laa yaa rab bul bul def loolu yow suma borom ashba'u yawman fa ahmaduk dama bëgg bu benn bis bi ma am lu ma lekk bu ma lekkee ba suur ma sant la wa uthni alayka gërëm la wa ajuu axar fa ad'uka wa atadarra'u ilayk beneen bis boo xamee ni bi awma lu ma lekk xiif na ma toraxlu farlu ñaan la Seydina Omar radiallahu taala anhu le trouva couché sur un lit en bois qui laissa des marques sur son corps béni et lui dit Kisra et Khaïsar dorment sur des lits de luxe de telle et telle matière il lui dit mais Omar Qu'ai-je à faire des biens de ce monde? Je comme un voyageur qui se repose à l'ombre d'un arbre puis s'en va. xoolal bi Seydina Omar da ko fekk mu tëdd ci lalu tagar tagar baa ngi marqué ci yaramam wu tedd wa mu nekk ca yonent bi alayhi salaam Kisra ak Xaysar ñu ngi tëdd ci ay lali wurus nekk ci bànneexu àdduna yonent bi alayhi salaam jóg ni ko maali walit dunya yaa Umar Umar man luy sama yoon ci poñetu adduna bi na innama ana fiiha ka raakibin istadalla bi dilli shajaratin summa raaxa wa tarakaha man Umar dama sama nekkin ci àdduna mooy nekkinu kuy tukki rek sonn romb garab dallu ci kër ga bu dalloo rekk dafay bàyyi garab ga continuer yoona Amis auditeurs, il faut que nous évaluions notre rapport par rapport à cette qualité. Est-ce que nous redistribuons l'excédent de nos biens? Est-ce que nous redistribuons les biens que la communauté nous confie? Ou bien est-ce que nous gardons pour nous tout ce qu'on nous donne? À cause de notre position de pouvoir profane, ou de pouvoir re religieux bokk il faut ñu natt sunu bopp euh, ci bii ji ko ndax ñun lu lu ëpp ci sunu alal dañu koy bokk ak ña ca des ndax ñun li nu askan wi dénk ñu ngi koy delloo ci askan wi ca na mu na mu na mu ware wala est-ce que lépp lu nu am rek dañu koy dànc gurgur ka pour nun fekk ñu ngi ko am kat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 للإسلام ركن عز دام شأنك الإنعام أنت بعد الله J'ai voulu rappeler ces quelques qualités du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, parce qu'elles nous manquent rudement en ces jours où tout le monde prétend aimer et suivre le modèle du prophète Muhammad paix et salut mbokk yi tuuti fàttali la ci jamono boo xam ni yii ñu ci tànn dana ko rafle ànd ak nag rafle nañu ko ba pare képp ko romb mu ne la sopp naa yonentu Yàlla sam moom lay roy je vais donc conclure avec le culte et la piété de la meilleure des créatures le prophète Muhammad paix et salut sur lui de personnes cessent de prier, de jeûner, abandonnent le culte parce que, disent-ils, ils sont devenus des amis d'Allah. L'aimer d'Allah, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, répondit à Sayyidatuna Aïcha qui lui dit de se reposer de ses prières nocturnes, puisque tous ses péchés passés et futurs lui sont pardonnés. Il lui dit, Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? boog ñu tëjeek jaamu yàlla yonent bi alayhi salaam ndax sunu jamono bi ñu bare nee nañu dootuñu julli dootuñu woor li jëm ci jaamu yàlla yi paase nañu ko lu tax paase nañu ko parce que yàgg nañ ci yàlla am nañu martaba yi xaritu yàlla la xaritu yàlla ba yonent bi sallallahu alayhi wa ali ba muy julli ba tànk ya neew yi saydatuna Aïcha ni ko xanaa yow kenn baalu la say bàkkaar yu njëkk ak yu mujj dil tëdd nga noppalu mu ne ko Aïcha afala akunu abdan shakura yow Aïcha est ce que man bu ma yàlla defalee loolu dama dul farlu dolli sama jaamu nekk jaam buy sant c'est par leur faveur et leur sentiment de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala qu'on les amis de Dieu qu'ils soient hommes ou femmes privilégiés par Allah subhanahu wa ta'ala Souleymane dit ceci est une faveur d'Allah pour m'éprouver si je serais reconnaissant ou ingrat verset 27 la fourmi mbokk ci seen farlu ci jaamu yàlla ci seen yëg lu leen yàlla defal ci la ñuy xàmmeewe xaritu yàlla yi moo xam góor lañu moo xam jigéen xoola yoon ci yàlla suleymaana ba ko yàlla defalee la mu ko defal suratu li mu ne hada min fadli rabbi lii ci njekku sama borom mbaaxam rekk la lu tax mu defal ma ka li yabluwani a ashkur am ak akfur dafay xool est-ce que man danaa ko gërëm farlu ci jaamu wala dama koy weddi allah subhanahu wa taala accorda à Marie la mère de Jésus d'immenses faveurs et lui dit Marie obéis à ton Seigneur prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui prient verset 43 Ali Imran mbokk yi sayyidatuna Mariam yaayu yont yàlla isa alayhi ba ko yàlla defalee la mu ko defal ci may yéege ko martaba siddiqa dafa ne ko yaa maryamu qunuti li rabbik maryam lii ma la defal dafa war a tax nga farlu dolli sa wommatu ci sa borom wasjudi nga yokk say sujjoot warka'i ak say ruko ma araakihin ca ñey julli suratu amis auditeurs, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous qu'Allah aime les effets de sa faveur sur son serviteur. Ces effets, c'est la gratitude, c'est l'adoration permanente, le zikr en toute période mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax na ni inna allaha yuhibbu an yara athra ni'mati ala abdi yàlla dafa sopp di gis jeexitalu xéewal bu ko defee ci jaam bi mu koy gis ci moom gis boobu mooy jaam boobu day dolli farlu yëg ni yàlla moo ko defal li mu dolli farlu ci jaamu borom bi subhaanahu wa taala l'amitié d'Allah subhaanahu wa taala doit la soumission la bienfaisance et l'imitation di profet Muhammad paix et salut la sourate la femme dit qui pratique une religion meilleure que se soumettre entièrement à Allah, faire le bien et suivre la voie d'Abraham, le modèle de droiture. Allah l'a pris, a pris Abraham pour ami. Sourate la femme mbokk yi cofeelu yàlla subhaanahu wa taala li koy wone mooy dolleeku wommatu dolleeku def njekk dolleeku roy yonant bi sallallahu alayhi wa ali yàlla mu ne wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah ana kan moo gën a rafet diine koo xam ni jébbal na léppam yàlla wa huwa muhsinun di def lu rafet wa tabaa millata ibrahima hanifan mu topp yoonu yont yàlla ibrahim ci dummóoyu lépp luy bokkaale wattaxaza allahu ibrahima xalila looloo tax yàlla tànnoon ibrahima def ka xaritam nu ñaan yàlla subhaana wa taala mu wërsëgal nu boole ñu ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yal na nu ko defal ذلك الملعون Sachez que suivre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et l'aimer n'est pas facultatif. C'est le troisième pilier de la foi. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit que personne ne croit réellement que quand il m'aimera plus que ses deux parents, plus que ses enfants et plus que l'ensemble des gens mbokk yi topp yonent ak sopp du dafa neex nga def ko neexu doo ko def moom mooy ñetteelu ponku ngëm moo tax yonentu bi salaam mu ni laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wa naasi ajmain mu ni kenn ci yéen du gëm lu dul dama ko gënal ay wayjuram gënal ko njabootu boppam gënal ko mbooleem nit ñi kum mënti doon afin que personne ne pense comme Seydina Omar qui lui dit envoyé d'Allah tu m'es plus cher que tout sauf ma personne le prophète alayhi salam lui dit non par celui qui détient mon âme jusqu'à ce que je sois plus cher que ta personne Seydina Omar lui dit maintenant je t'aime plus que moi-même le prophète alayhi salam lui dit maintenant ya Omar ok pour itam nit bañ yaakaar ni boppam war na ko mën a gënal yonent bi alayhi salaam Seydina Umar ni ka yaa a gënal lépp ba mu des sama bopp mu ne ka laa du noonu Umar waat naa ci yàlla ni li fekk gënaluma la sa bopp sa gëm matul Umar ni dënn ni ka léegi de yaam a gënal sama bopp mu ne ka al aana yaa Umar léegi nag sa ngëm mat na retiens donc prétendre aimer quelqu'un d'autre plus qu'Allah et son messager est de l'hérésie et de la mécréance Seigneur, nous croyons au Coran que tu as révélé et suivons ton prophète. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent qu'il n'y a de divinité que toi et que Muhammad est ton serviteur et ton envoyé mbokk nanu jàpp bon yaakaar ni am na kenn ku la war a gënal yàlla wala mu gënal la yonent bi alayhi salaam réer la mën na sax muy weddi borom bi rabbana amanna bima anzalt yow yàlla ñun de gëm nañu sa alquran ji wattabana rasul topp nanu sa yonent fakkatub naa maha shahidin ñu ngi lay ñaan nga boole ñu ci ñi nga xam ni ñu ngiy seede amul benn buur bu ñuy jaamu-jaamu gi di jariñ ku dul yow di seede ni yonent bi sallallahu alayhi sa jaam la sa yonent la ñu nekkoon fii ci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 wa nuuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi fi mustafa rahman anta fi akwan mustafa rahman le message du Coran hadiyan lillah ya rasul allah